boo communiqué des fois gars yi dafa am nu ñu koy jàppee te xamuñu ni que Mamadou day day neexal bés. waaw ñun ci làmb la ñu nekk suñu papa moo nekkoon si làmb bañ ñu ñëw nekk si làmb suñu papa nekkoon si ak suñuy mag ñun ñu ñëw nekk seen suñuy moroom ñu jàpp ne rek yi ñuy wax dañu koy wax parce dañoo tolloo xale yi bopp tolloog ñoom fi ñuy xalaatee tolloog ñoom lépp moo tax léeg-léeg yenn termes yi wala yenn benn façon bi ñu koy communiquer mais wax ñu ko parce qu'on est wax waxuñu ko parce qu'on est contre qui que ce soit ñun wallaahi al azim suñu xol bii ñu yàlla may Anta mën cee yéene nit dara lu bon. mais ku njëkk sax moom dañ ko naan ji pro Boy Niang man fekke naa. mais léegi waa kër Boy Niang ñoom ak ñoom ñoo xuloo man loolu moo lay wan làmb la sport la boo xamante ñi ci nekk ñu bari jànguñu e man lu mu bon bon bon am na lu ma jàngee te loolu ma jàng dama koy ki jàngul dama ko koy tane. damay am tuuti maturité xale laa woon bu njëkk yu bari dama ko doon tontu nga may gis may xeex cee saadi bu amati tant que yàlla nga may bàyyi ak sama xel mii parce que am na am nañ objectif am nañ fuñ bëgg a dem garaawul li nga wax li booy a wax a wax dafa ni li mu wax yow da nga ni li mu wax su booy ñaa arbitre bi sifflé songul Balla Gaye tapet la maa ko wax wasalaam mais Doudou Doudou pël waay xarit da ngay Fatma Fatma Dia waaw. Fatma a may. amiin baax pël la ñu mayandoo benn jour. amiin amiin. Ah, ah. noo ma tuddee woon. nan laa tuddee kan. noo ma tuddee woon i Gate. Ibou Gate waaw. mais pël gi pël yàlla gudd fan. amiin samay xarit la ñu nag ndeysaan. jigéen. man pël on a fait toutes les guerres. maa ngi moom maa ngi moom ba di xuloo ci féeri ba kon di xuloo mag moom man waa ba. waaye li may làmb nag neewul samay jigéen lañu yàlla seen jàmm yàgg